coalition yi fi nekk yëpp di ñi nga xam ne dañoo am empêchement parce que jamono ji dañoo nekk bitim réew di wax ni ñoo ngi dellu sant yàlla ñu may ñu fekke lii sant ko it may déranger ko doxale ko ci ak ñi ci toftal muy monsieur le maire Barthélémy Diaz monsieur le maire madame le maire Aminata Kanté et monsieur le maire le président du conseil départemental Babacar Diop Guèye du moins waaye defe naa président Déthié Fall jàngal na leen li ci des ci bureau bi yëpp jarul ma leen ci ma ciy dellu muy ay maire ak ay président de conseil départementaux yoo xam ne xam nañu seen xarañ xam nañu seen farlu xam nañu seen pas-pas ci li ñuy liggéey ba tax ñu am yaqin ni li ñu dénk bu soobee yàlla dinañ ko doxal ni mu war a doxee tey nag bésu lancement bi dong la dañoo dox lu yàgg président Déthié Fall fàttali na ko balaa ñuy yegg ci bës bi ndax lu ñu annoncé woon mois d'avril ba tey ñu nekk mois d'octobre xam ngeen ni liggéey nañ ci bés bi du woon bés bu yomb loolu nag li muy wane mooy dafa mel ni réel nag am na ñu mu xaw a yëngal te dara xewagul ndax yéen ñëpp xam ngeen ni bërëb bi ñu waroon defee réunion bii muy Fun City démb la ñu toog ba presque guddi ñu woote ne mënatuñ ñoo jox bërëb bi te joxuñu ñu benn explication waaye nag ci réew la ñu am na loo xam ne am na lu muy tëre rek dinañ xam ne ne ci gannaaw ba ci yeneen ak yeneen yoo xam ne feeñ na ci bés bi waaye jarut wax li mu wane rek mooy dafa mel ni réel am na ñu mu yëngal te balaa ñu yegg am na ay pexe yu nit dox ngir réel bañ a taxaw li àndi loolu nag mooy Sénégal yëpp xam nañ ni collectivité locale yi ci lim defe naa cinq cinquante ak yu tegu la juróomi téeméer ak juróom fukk ak lu teg moom la ñu am ci li nga xam ne ay commune la boo ci boolee quarante moo lay jox à peu près six cent quatre collectivités locales su ma koy branché. kon bëri nañu. soo ñëwee nag ci reer ñi daje ñi ko bokk ak ñi war a ko bokk pour le moment su bëree ba bëri defe naa quatre-vingts collectivités locales la mooy juróom ñetti fukk kon boo sukkandikoo si loolu rek bu doon gën reer bi daal amul waaye nag tubaab day wax qualité wax quantité mooy ngooñ day am li dañ ci suuf gerte gi loolu yëpp day am dañoo bokk meññ yàlla dafa def bi ñu génnee ci élection locale dafa am lu ñu ñaanoon Sénégal yi moo ñu wóoluñu te dénkuñu lenn ci collectivités locales yi suñu mënul jox lépp ndax moom àndul ak jël lépp Sénégalais yu bëri dégluñu rawatina nag ci dëkku taax yu mag yi daal ñuy wóolu dénkuñu dëkk yooyu te ñëpp xam nañu nag ci wàllu collectivité locale boo téye dëkk yu mag yi daanaka ci lim de bëriwul. waaye boo ko jëlee ci qualité dafa mel ni quatre-vingt pour cent yaa ko yor sénégalais yi defal ñu loolu wóoluñu may ñu ba jox ñu lu mel ni ndakaaru lu mel ni géejawaay lu mel ni commune yu bëri ci département Pikine lu mel ni Rufisque lu mel ni Thiès lu mel ni Ziguinchor ak yeneen ak yeneen yu ni mel waaye yemuñu ci loolu ndax Mbàkke sax ñun lañ ko joxoon pour li am amuloon ñoo ko gañee waaye yemuñu ci loolu yeneen communes yi nga xam ne noonu la ñu amee solo ñu leen wooye commune rurale ñu dagg ci lu bëri dénkuñu moo tax ñu jàpp ni fi mu toll nii boo koy jël rek ci qualité li ëpp qualité ci collectivités locales yi fii ci association bu bees bi ñu sumb tuddee ko réel ñu ne nag dañuy taxawal association boobu mel nii tiital nañ ñu jàkkaar ba lu def nañ ko pour mu bañ a taxaw lan moo tax ñu fas yéene ko taxawal du mbirum par parloo wala mbirum politique defuñu ko parce que dañoo bëgg a démarqué wu simplement ñun ku ñu xam-xam ni caaxaan dugaluñu ci politique. réew bi rek moo ñu kilifa yi fi toog yëpp Sénégal yi xam nañ ni réew bi rek moo leen ñor te li ñuy daj ci réew mi mënoon nañ tànn lu gën a yomb lool tey ñu ngi seen i millions wala seen i milliards toog jàpp seen ñam kon ñun ñooñu mel noonu bu ñu dajee di def bëgg par parloo ak bëgg péete taxaw leen a def moo tax réseau bi dañu ne réseau des élus locaux du Sénégal la kuy élu local rek. am nga fi sa place te jëluñu ko kenn boo dee meeru Benno Bokk Yaakaar wala maire boo xam ne Benno Bokk Yaakaar mbooloo ko defoon ci liste wala maire boo xam ne beneen liste ci liste parallèle yi fi wala beneen liste ci liste opposition yi fi newoon bu dee gis nga sa bopp ci li war a def boo dee toog toog ci buntu bi ñu ubbil la kon par par loolu taxu ñoo jóg bëgg féete taxu ñoo lan moo tax ñu taxawal ko mooy ñun dañoo ñëw ci politique ay xalaatin ak ay gisin ak ay jëfin yoo xam ne la wax sénégalais mooy lu wóote la ak la gisoon dañuy gis ñu def ci jamono jii lu waroo la ak lu soreyantoo ak loolu la dañoo ñëw àndi ci politique ne politique dafa war a doon jaamu yàlla sonn ngir sa askan waaye politique warul doon loo xam koy def pour loo loo mën a yóotu rek dugal sa poos ñu ne nag ci bépp xeetu position boo xam ne da ngaa war a jëriñ idées yooyu nga xam ne xalaat yooyu nga xam ne moom la ñu yooyu ak politique foofu lañ ko bëgg a defee moo tax suñu maire yii bokk na ci li leen jëkk a diggal bu leen kenn dégg ci coowal suuf suñuy xëccoo di ko dagg di ko jaay ci lu dëkk bu leen kenn dégg ci coowal scandale financier ak xaalis bu waroon dem ci askan wi ñu naan dugal ngeen ko seen poos yéen a war a jaamu askan wi waru waaye askan wi warul warul warul leen jaamu yéen na ngeen fexe ba kóolute gi askan gi am ci ñun ñu delloo leen ko ba ñu ne ah ñun de ñii suñu waat waatee nañ leen yokk nañ leen dolli parce que li ñu def kawe suñu jot te yàpp naa ni kenn ku nekk ci suñu maire yi li muy liggéey ci mairie Sénégal yëpp teg na ko ci bët xalaat yooyu nag ñu àndi dañoo jàpp ni méngoowuloo nag ñu dem dugg ci ay kuréel yoo xam ne neneen lay doxee nu bokkul ak loolu te buñ ci duggee it buñ ci tàppoo nañ ko bëggee ñun ci doxal xalaat yooyu ñu ko mën ndax boo ci duggee fañ lay féete féetele ak fañ lay teg du la permettre yow nga mun a liggéey wala nga mun a expérimenter sa idée loolu moo tax ñu ne kon dañu samp kuréel boo xam ne dinañu mën a permettre ñu am suñu propre ADN ci ni ñu bëgg a doxalee mbir ñu mën a doxal suñu gis-gis ak niñ ko bëggee te du am gàllankoor loolu mooy justification association bi ñu taxawal waaye du loo xam ne moo tax ma ne du association Yewwi Askan Wi de fii ci biir salle bi ab maire ngi fi boo xam ne liste bi mu ne woon ba ñu fal ko maire bu liste Yewwi Askan Wi waaye beneen liste te bëri na maire yoo xam ne nekkuñu woon ci liste Yewwi Askan Wi waaye contacté nañu ne ñu dañoo bëgg ñëw bokk ci kuréel gi ñu taxawal te bu soobee yàlla nag nii ñu ko waxee noonu lañ koy doxale ndax nag li ñu bëgg askan yu xam mooy collecte locale mairie conseil départemental dafa am solo ci réew waaye Sénégal yi dañoo dem ba xeeb mairie ñëpp soo xottal nañu mairie li ko andi mooy bëgg def décentralisation waaye doo bàyyi mairie ñu liggéey ndax Sénégal lépp politique la ba tax li ñu waroon liggéey mu jëriñ askan wi bu dee maire bi nee nañu maire opposition la nga ne du ko bàyyi mu liggéey ndax su liggéeyee waa gox ba wala waa dëkk ba dañuy gën a dañ koy gën a gëm te boobaa baax ci man waaye su demoon si loolu sax waaye maire yi ànd ak ñoom sax duñ leen bàyyi ñu liggéey ndax su ma déggee nit ñi naan maire bu àndul ak nguur gi mënul mënul def résultat waaye maire yi ba élection yi di am. li jiitu woon quatre-vingt-dix cent des maires wala lu ko ëpp sax nguur gi lañu ñu àndaloon ana lu ñu def seeni gox dara li ko waral nag mooy politique bu ëpp mooy même maire bu bokk ak nguur gi ñu nekk ci kaw gëm nañ bu defee ay résultats da koy jox beneen dimension boo xam ne boo moytul mu commencé xool seen système moo tax du ñu bàyyi communes liggéey yu ne nag loolu dina jeex bu soobee yàlla ndax gis ngeen président de la république li mu yor ci ay ak sañ-sañ li mu yor ci pouvoir constitution moo ko jox ak loi waaye maire bu nekk fii li mu yor ci pouvoir ak li mu yor ci sañ-sañ constitution moo ko jox ak loi ndax constitution moo posé le principe de la poser le principe de la libre administration des collectivités locales et poser le principe de l'autonomie des collectivités locales kon ci constitution la ne président de la république mënu ci dara keneen mënu ci dara waaye loi bi ñuy wax code général des collectivités locales ni ñu di ko waxee di ko woowee acte trois ay centaine d'articles nekk ci moo jox maire bu nekk ak président conseil départemental bu nekk ne lii mooy sa sañ-sañ li mooy sa pouvoir lii askan bee la ko ndax loi assemblée nationale bu koy wotee du président de la république ba léegi nag loi boobu voté nañ ko jëluñu décret d'application bokk na ci problème au Sénégal 2013 ba léegi voté nañ ko te jëluñu décret d'application loolu beneen débat la kon loolu nga xam ne suñuy sañ-sañ la te loi may ñu ko man de maire la fee ci Sidi Dior waaye damay yore sama mairie lépp loo xam ne sama prérogative la te loi may may na ma ko wala gouverneur wala ministre mu ñëw ne man doo ko defee nii mu ko moo may ba léegi collectivités locales yi seen sañ te loi boobu yemoon ci acte trois code boo dinañu publier ñun réseau des élus locaux du Sénégal dinañ publier benn recueil ñu ngi ciy liggéey boo xam ne lépp loo xam ne sañ-sañu élu local la te mu nekk ci code de l'urbanisme wala code de l'environnement wala code euh, de l'assainissement wala beneen code la loi sur le financement des PME la loi sur l'économie sociale et solidaire nañ ko dajale tënk ko mu doon benn repère pour képp kuy maire wala président conseil départemental nga xam lan mooy say sañ-sañ te réew mi nag bu ñu ko bëggee développé nañu xam ni développement ci suuf lay jóge ci kaw waaye li jóge ci kaw dem ci suuf nit munoo toog ndakaaru taal sa climatiseur ne man mairie bi nekk fële Saraya dinaa wax naka la war a doxee loolu mënul dox développement ci base bi lay jóge jëm ci kaw moo tax il faut ñu dooleel suñuy collecte locale loolu moo tax réseau bi ñu taxawal ko ñun nag wujjewuñoo beneen association bu am xuloowuñoo kenn association yi c'est des associations privées yoo xam ne c'est la loi sur la liberté d'association moo koy encadré c'est pas des associations yoo xam ne c'est pas des institutions yoo xam ne suñu constitution moo ko taxawal ne lii institution la maire bu nekk am na sañ-sañu def délibération conseil municipal am ne bokk naa ci réseau bi comme maire bu ne sañ naa def ne beneen réseau la ko ñu nangul ko kenn ku ne bu xuloowuñu waaye am nañ sañ-sañ bi te réew mooy doxee noonu soo ko jëlee ci wàllu syndicalisme ay décennies ci gannaaw ñoom awim si ñii nga xam ne ñoo ko fekk benn syndicat benn central syndicat bu rëy moo fi central syndicat moo am loolu da di doxee parti politique parti unique moo fi amoon ñuy def ko ci yàgg ñu def ouverture contrôlée def ko quatre courants tey y a plus de trois cents partis politiques au Sénégal ASC yi sax noonu lay doxe loolu nag démocratie moo koy laaj yenn saa yi ñu war koo nangul kenn ku nekk te bañ koo def problème parce que problème amu ci ñëw ñu it ngir jàmbarloo ak état central état su ñuy wax état dama bëgg ñëpp xam ni état bi ngi commencé ci collectivité locale yi dañu nekk collectivité décentralisée ak collectivité centrale état mooy collectivité centrale les mairies et les conseils départementaux ñooy état décentralisé moo tax soo jëlee collectivité locale bi ñetti ñe ñetti fonction lay joué ñaareel bi ci boo koy lim ñaareel bi mooy fonction de représentation de l' état kon ñun ci état ñun ñooy état ci la ñu bokk waaye su manee nee pour jàmmaarloog état mooy état central bi dafa am dox suñu diggante te mooy la loi suñu toogee ba tey ñu nekk mois d'octobre nit ñëpp di jooy naan fonds de dotation fonds d'équipement li tax biiré wuñu central moomul fonds de du loo xam ne président de la moo koy may collectivité waaye loi la ñu jël mu ne aide de collectivité locale yi dañ leen war a te ci assemblée nationale lañ koy voté ci budget bi dañ leen war a jox fonds de dotation ak fonds de d'équipement chaque année loolu président bu ko bañoon joxe sax da koy joxe mënu ci dara bu ko neexee nag ñu tànn leen mu ne ministre des dëgg ko dëgg ko waaye su ko téyoon ba 31 décembre tam dina ko joxe parce que droit la ci collectivités locales yi kon li nga xam loi moo ko teg suñu diggante état. sartal ko loolu moom dinañ ko doxal ba mu mat sëkk te duñu nangu ku ñu ci jaay loolu ñëwuñu pour jàmmarloo ak état man maire la yoon dafa ne maire day liggéey ak état bi am ay des services déconcentrés yu nekk sama biir commune léeg may liggéey ñoom léeg-léeg maa leen jox sax local bi ñu nekk état def fa un boo xam ne moom mooy le représentant de l'État su ma defee sama délibération conseil municipal ba pare dama ko koy yónnee su may def conseil municipal day ñëw toog buy def ay activité daf may woo wala mu bind ma wala loolu mooy liggéey bi mais loolu liggéey dans le cadre de la république la ndax léeg-léeg gars yi dañuy jaawale bi Barthélémy Dias ne je suis prêt à travailler avec l'État ñu ne Barthélémy day rejoindre Macky déedéet Barthélémy mooy maire de la ville de Dakar day liggéey ak l'état te l'état day liggéey moom ndax ñun suñuy commune am na loo xam ne état bi bu ko bëggoon ñëw def foofu faaw mu laaj ko ci li nga xam ne sama compétence bu ñu nee maa yor école élémentaire état su buggoon ñëw def dara ci école élémentaire bi faaw mu laaj ma ba pare kon dañuy liggéey te loi moo tëral naka la war a liggéey fii rek ñu ngi respecté loolu. ñun ñëw ñëw ñu fii pour jàmmarloo ak état waaye buñ ñu buggee nag imposer loo xam ne du yoon dinañu bañ ba tëdd ci suuf te loolu lañ ñu xam du ñu tooñ waaye du ñu nangu ku ñu tooñ kon association bi gannaaw bi ñu ci jiitale ñuy gërëm mboolem seen maire yi fi nekk. waaye di gërëm conférence des leaders parce que nag dañu ne feccum xale bu neexee dafa fekk yaajaa nekk ci gannaaw di jàpp ci mag yi xeewuñu maire xeewuñu président conseil départemental yi waaye dafa am ay leaders yoo xam ne depuis des mois et ñoo toog waxtaan dëppoo ci xalaat ba taxawal coalition jóge foofu ngemb ay nit yemuñu foofu dem fekki leen ànd ak ñoom jàppale leen munoon nañ ne bi ñu gañee la ñu ñoom ñu ne déedéet parce que maire bu fi nekk rek ni mu amee responsabilité ci mairie am noonu la ñu responsabilité ñu parce que la preuve bu dara amee li ñu njëkk a su dara amoon tey yëmbal ñu ne euh, le maire day mbënde dañ naan le maire Yewwi da yëmbal pour pour rattacher ko rek à Yewwi ak pour essayer atteindre la coalition moo tax ñu ne même niveau de responsabilité la ñu am moo tax leader yooyu mosuñoo raxas seen loxo ci mbir mi di ci nekk di ci nekk di xalaat di nas suñu paree gaaral les élus muy ñii nga xam ne ñooy les maires les présidents du conseil départementaux muy ñële nga xam ne ñoo nekk assemblée nationale di les députés te noonu lañ koy continuer doxalee bu soobee yàlla te loolu mooy responsabilité nit doo jur sànni soo dee leader bokk ci conférence des leaders ngeen di coalition bu ngeen waxee Sénégalais yi ba ñu fal seen ndaw ndaw yooyu da ànd ak ñoom jàppale leen ci liggéey ba yàlla may leen liñ ci bëgg ak ni population yi bëgg moo tax ci fan yi di ñëw dinañu gën a jëmmal association bi dinañu déposer statut yi ak règlement intérieur du ministère de l' intérieur bu ñu defee enquête yi ba pare. ba jot suñu récépissé laam ñu war a def def suñu diggante ak nañ ko def mooy association bi fi nekkoon moom donc lépp loo xam ne loi wax na ni association bu dajale ay élus ko war na koo am parce que association loi bi musul wax turu benn association dafa ne association des élus locaux lépp loo xam ne su dee subvention la wala duñ koy boole ci ay liggéey lépp loo xam ne association boo am na ko te loi jox ko ko lu ñuy réclamer la jur ñu jox ñu ko la nga xam ne nag ay affaire politique la suñu yoon new ci ñaareel bi mooy dinañu jëmmal association bi ci àdduna yëpp nag te jàpp ni lu yomb yomb lay doon ndax li association bi dajale moo tax jëmm yi mu dajale ak collectivités locales yi mu dajale gis ngeen ni démb rek barki démb rek suñu frère Barthélémy Dias jox nañ ko cër bu rëy rëy rëy fi mu demoon fële ci Corée ba nga xam ne fonds mondial pour le financement des collectivités locales des collectivités territoriales xam ne xaalis bu dul jeex la ñu jagleel ko rek ñu ñuy jàppale collectivités locales yi moom lañ fa nommé vice président te li ko andi mooy collectivité bi mu représenté bi mu jëmbal te côté boobu tey nekk fii ci bis biir réew te moom muy vice président réew ñu topp toftal ko ci man mi kon lépp luy association internationale buy dajale les élus locaux dinañ ko bind affilié ci liggéey ak ñoom njëriñ da ca nekk ñu mun koo ñot fii ci biir réew mi mu di njëriñ collecte locale su may wax collecte locale nag ci lu mel noonu defuñu ci xàjj ak seen parce que ñun li ñuy li ñu doon xeex ba tey du ñu ñëw ko def yow nga foofu mooy su nee dafa am fonds mondial bu ne tant de milliards dafa war a ñëw Sénégal pour les collectivités locales la fay seetuñu si lan mooy collectivité locale boo xam ne waa pouvoir ñoo ko jiite wala waa opposition képp koo xam ne éligible lañ ci war a jot nañ ko jot kon loolu mooy solo bés bi bésu tey ñuy dellu sant yàlla di gërëm ñëpp di jox sénégalais yi ci prochain jour parce que lu ñuy def lu ñu dugg rek dañ ciy def fulla bu mat sëkk ba nit ñi am ci lu kawe seen joor may daanale nag mooy di lancer un appel d'abord suñuy élus locaux yi fi nekk tey lii de ñoo ko bokk man maa koy defar ñun ñëpp ay ànd defar ku nekk ci bureau ku nekkul ci bureau ay affaire u bureau formalité la parce que fu ñetti nit ànd rek ñu jiital kenn keneen ki ñu ne ko yaay porte parole ka ca des topp ci waaye tekkiwul ni ku ñu jiital da ngay xëy lu la neex nga def fu la neex nga engagé mbooloo déedéet nit da gore tekkiwul it nit ñi ñu jiital ñoo gën ñi ñi ñi bokkul ci bureau bi sori na loolu trop moo tax kenn du ne bokkuma ci bureau bi rek du ma ci dugal sama déedéet kenn ku ne saa suñ la soxlay ci liggéey bi nañ ci jàpp ñu liggéey waaye di lancer un appel aussi à tous les maires et les présidents de conseils départementaux yu mun a intéressé ñëpp nag ñoo ngi leen di lancer un appel ne leen association bi association bu ubbeeku la te li ko tax a jóg mooy jëmmal collectivité locale ba ñu jox cër collectivité locale bu Sénégal ba citoyen bu nekk mun a am fierté ci mairie parce que la ñuy gis feneen ak la ñuy gis ci mairie soo voyagé tey so demee Maroc ba gis waxuma la France waxuma la États-Unis ay mairie New York ak yooyu sax waxuñu ko ndax mairie yooyu ñoo ëpp doole état Sénégal ci budget waaye Maroc kii rek wala Tunisie boo fa demee ba gis cër bu ñu jox mairie nga ñëw Sénégal lii ñuy wax ay fonds de dotation mu ngi 4 virgule xaw ma ñaata ba senegal ba léegi mais mi ngi 12 pour cent fii ci Mali mu nga 20 pour cent ca Maroc yooyu tam ay combat yu ñuy te comme yàlla may nañu tey ñu am taxawaay bu dëgër ci assemblée nationale moo tax lien boobu day am diggante nos loo ko et nos élus à l' assemblée nationale nañ ci xalaat tëgg ay proposition de loi teg ko ci table assemblée nationale pour ñu gën a dooleel collectivités locales yi pour ñu mun a def liggéey bi nga xam ne askan bi bu ngi koy xaar ci yoon lii mooy association bi tëjuwul ci kenn ak foo mun di bokk ci couleur politique ñi ngi wax ni ku fëgg suñu bunt ñu ubbil la nga bokk ci association kon ñu ngi leen di gërëm sant di jéggalu ci toogaay bu yàgg bi waaye di joxante rendez-vous ci fan yu néew commencé liggéey bi bureau bi moom bu yóbboo ngeen bañ a sori ndax gëm naa ni lundi bu soobee yàlla dinañu commencé liggéey bi parce que ñu war a gaaw la ñu war a gaawantu parce que lu askan wi di xaar la asalaamaaleykum wa rahmatullah comme demande les humains en français j'ai le défaut d'être très prolixe ce que Déthié me reproche tout le temps mais lui il est militaire moi je suis civil et nous rendons grâce à Dieu nous a permis de d'être là aujourd'hui pour euh, procéder à cet important acte qui est la mise en place, la, le lancement d'autres réseaux des élus du Sénégal. Je voudrais, à l'entente de mon propos, féliciter une de plus la conférence des leaders qui en est le maître Le féliciter pour sa constance également non seulement à mettre en place une coalition, à se battre pour faire réussir des investitures, battre campagne pour aider nos candidats, mais surtout continuer accompagner ces, nos heureux élus, aussi bien au l'Assemblée nationale que des collectivités locales. Dire que ce réseau est important pour nous. Rappelez-vous que l'idée a été lancée au mois lors de notre atelier qui s'est tenu à la de Dakar. Nous avions pensé qu'il était important par rapport à notre spécificité, c'est-à-dire la base programmatique de notre coalition, qui est fondamentalement axée sur une nécessité de rompre avec aussi bien les pratiques que les, les projets qui sont en cours aujourd'hui au Sénégal, nous avions pensé qu'il était nécessaire de mettre en place un certain nombre de cadres. Lesquels cadres allaient nous permettre de regrouper les élus. D'abord, ceux qui ont été élus sur la base de nos propres listes, mais tout autre élu qui serait intéressé. Et pour en faire un laboratoire expérimentale de nos idées. Et en la matière, en matière de collectivité locale. Le constat est unanime. Beaucoup de Sénégalais se posent quelquefois la question de l'utilité même des collectivités locales. Et tous ceux qui sont élus l'éprouvent au bout de quelques seulement d'exercice. Nous avons pensé que c'est beaucoup plus un problème lié à la pratique à la perception de ce que doit être le fonctionnement d'une collectivité locale, mais également à la nature des rapports que les collectivités locales entretiennent avec l'État central, qui les met dans une position de faiblesse, mais également dans une position de dépendance chronique. Nous considérons, nous, pour avoir beaucoup réfléchi sur la problématique des collectivités locales, et même écrit Personnellement, j'ai publié un livre, donc co-publié un livre avant euh, les élections locales. Mais je veux dire que moi, je suis élu de la filière droit public, option collecte locale, et mon mémoire s'intitulait L'exercice des, des compétences transférées au Sénégal. Et nous avons réfléchi sur ces problématiques depuis très très longtemps. nous avons considéré que c'était beaucoup plus lié à cet ensemble de problèmes que je viens d'évoquer. mais qu'en réalité, les collectivités locales disposaient d'un certain nombre de leviers largement inexplorés pour faire beaucoup plus que ce qu'elles sont en train de faire. Indépendamment du fait que nous pouvons tous travailler à renforcer davantage sur le plan législatif ces collectivités locales. Et c'est pourquoi l'articulation entre notre groupe parlementaire, entre tous les députés de l'opposition et Ce qu'on est en train de faire au niveau local, cette articulation-là va être permanente. S'il faut déposer des propositions de loi qui devraient nous permettre d'améliorer le système actuel, la législation actuelle en matière de collectivité locale, nous Et nous sommes en travailler déjà. Mais je voudrais dire simplement que même dans le dispositif actuel, nous considérons qu'il y a énormément de prérogatives laissées aux collectivités locales que les collectivités locales n'exploitent pas suffisamment. Par frilosité, par méconnaissance ou par euh, faiblesse en réalité. Et c'est cela le grand chantier que nous sommes fixés. Je disais tantôt que les attributions des collectivités locales ne sont pas seulement contenues dans l'acte 3 de la décentralisation. encore que pour l'acte 3 décentralisation, ne serait-ce que pour l'aspect mobilisation des recettes. Pour ceux qui sont dans les pôles urbains surtout, parce que euh, euh, les collectivités locales, les, communes rurales ont beaucoup plus, ont beaucoup moins d'assiettes. Mais ne serait-ce que sur l'aspect mobilisation des recettes, et je le dirais, je le dis tout le à tous mes euh, camarades communes de maire, comme, euh, de commune Et je disais l'autre jour au maire de Ngor que je passerai faire une chance de travail parce que vous ne pouvez pas avoir les Almadies et ne pas faire 10 milliards de budget. C'est pas possible. Rien que sur le foncier bâti, le foncier non bâti, les ODP. Et c'est largement inexploré. Et c'est ces chantiers-là que nous devons maintenant prendre ensemble et démontrer qu'il est possible de faire beaucoup plus et beaucoup mieux. Et c'est cela qui nous a amené à la mise en place de cette association. On ne pas fait par souci de démarcation ou par favoritisme politique. Absolument pas. Si nous étions convaincus que les chantiers que nous voulons mener, nous pouvons aisément le faire dans d'autres associations déjà en place, nous l'aurons fait. Mais cette association existe depuis, on nous dit, Beaucoup de, de, de, de maires l'ancien, bon, l'actuel maire, mais qui sont à leur deuxième, troisième mandat, sont ici dans la salle, nous aurions du mal à dire à quoi sert, à, pu servir réellement cette, on peut servir réellement ces associations. Et ces enjeux interpellent aujourd'hui tous les maires, quelle que soit leur coloration politique. Et c'est pourquoi nous avons pensé, puisque la Constitution le permet, les lois le permettent, une association de ce genre n'est pas une c'est une association privée qui regroupe seulement des, des, des, acteurs qui remplissent un certain nombre de qualités. Et en l'occurrence, ici, il faut être maire ou président du conseil départemental. C'est l'une de nos spécificités aussi, parce que les autres associations, c'est soit une association de maire ou une association de président du conseil départemental. Donc on a mis les deux en même temps. Cette association va poser les actes nécessaires à sa reconnaissance dès les prochains jours. Dépôt de, des textes au niveau du ministère de l'Intérieur, obtention du récépissé, signification au ministère des collectivités locales et à tous les autres, si c'est nécessaire. Mais cette association, toujours au niveau interne, exigera le même traitement et les mêmes avantages que toute autre association similaire je parle davantage découlant de la loi. Si la loi a dit que les associations de maires doivent recevoir des subventions, cette association, comme toute autre, recevra sa subvention pour lui permettre de fonctionner correctement au-delà des cotisations de ses membres. Cette association également euh, veillera à être associée à la gestion des fonds de concours des, des, des, fonds de dotation et des fonds d'équipement. Parce que la loi associe l'association des maires dans la gestion de, de cet aspect-là. Et sur le plan international, cette association s'affiliera à tout, toutes les instances internationales, que ce soit euh, la CGLU, euh, Association internationale des maires francophones, euh, etc. Il y a énormément d'associations de ce genre qui peuvent beaucoup apporter également, si nos dossiers sont bien présentés et bien défendus. L'honorable Aïda ici présente, c'est de quoi je parle parce qu'elle a été membre des bureaux de ces associations C'est une association qui aura pignon sur lui, puisque c'est une association qui est extrêmement représentative au Sénégal, dans le sens, en ce sens qu'elle regroupe les collectivités locales les plus représentatives aujourd'hui en termes de décentralisation au Sénégal. Et cette association également sera un creuset, un cadre d'échange entre ses membres sur des problématiques comme l'économie sociale et solidaire. C'est l'avenir des collectivités locales. L'économie sociale et solidaire. Le, le financement des PME et PMI. Ce n'est pas pour rien qu'un ministère entier a été érigé pour l'économie sociale et solidaire. On a beaucoup de communes rurales ici qui ont énormément de potentiel agricole, qui peuvent rapporter à la commune en termes de recettes, mais qui peuvent rapporter beaucoup à ce pays et qui peuvent, peuvent créer des conditions d'échange entre nos différentes communes. Je donne un exemple très simple. La semaine dernière, on a lancé notre programme d'économie sociale et solidaire à Ziguinchor. Nous avions invité la responsable de, cette question au niveau de la ville de Dakar Il est venu à Ziguinchor, il a fait la présentation publique que vous avez tous suivie. Le lendemain, je lui ai un, une voiture et un chauffeur et j'ai dit qu'on l'amène visiter tout ce que les femmes transformatistes sont en train de faire à Casablanca. Quand elle est revenue le soir, elle était tellement ébahie. Elle me dit, j'ai jamais vu ça. Mais il faut que nous puissions avoir un couloir avec Dakar pour que ces produits qui sont transformés ailleurs, à Dakar par exemple, dans les grandes surfaces, mais que la ville de Dakar même, et ça va créer des emplois, puisse recruter des gens et avec des points de découlement de ces produits. Tous les produits halieutiques, agricoles, forestiers, énormément de choses qui quelquefois pourrissent même là Voilà un certain nombre d'axes extrêmement importants sur lesquels nous allons travailler, d'autant que Dakar organise l'année prochaine en 2023, en juin, je crois, si je m'abuse, ou avril, en mai, le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Je donne quelques aperçus seulement des chantiers qui nous attendent de ce nous pouvons faire ensemble. Et c'est pourquoi nous terminerons par lancer un appel d'abord à tous les maires déjà membres à se retrouver les manches. Moi, je ne crois qu'au développement endogène. Je ne crois pas à un développement qui tomberait du ciel. Autant je ne crois pas à pays qui se fait développer par d'autres pays ou par des institutions internationales. Autant je ne crois pas à l'échelle locale à un développement qui tomberait de l'État central. Ressourçons-nous les marches et mettons-nous au travail. Qu'on soit ou pas du bureau, ce pas important. Je lancerai également un appel à tous les maires. Cette association, c'est l'association, c'est le réseau des élus locaux du Sénégal pas de Yewwi Askan Wi ici dans cette salle nous avons mon frère Ousmane Diallo maire d'Oussouye qui n'a pas été élu sur une liste de Yewwi Askan Wi qui est là beaucoup d'autres maires on a au moins une dizaine qui sont déjà inscrits et qui étaient qui ont été élus sur d'autres listes tous ceux qui seront convaincus que cette association là peut propulser l'école locale vers une nouvelle dimension quelle que soit votre coloration politique, vous êtes le bienvenu dans cette association. Et après, nous ne sommes pas rivales d'une autre association et nous ne sommes pas dans l'adversité avec l'État central. Nous sommes dans un pays libre où chacun est libre de mettre en place son association conformément à la loi. Si nous étions convaincus les idées que nous portons pouvaient être totalement expérimenté et pris en charge par l'association qui est déjà là, nous y serions. Mais quand tout est dans ce pays, et quand, quelles que soient les idées et les qualités, vous ne pouvez rien faire dans une association, mieux vaut, dans le cadre ce que la loi permet, mettre en place une autre association. Et c'est ça qui a prévalu à la mise en place du réel. Nous appelons donc tous les élus locaux, quel que soit notre pouvoir politique, qui seraient intéressés par est en train de faire, nous leur disons qu'ils seraient bien accueillis et que les, les portes leur seraient grandes Voilà ce que je voulais dire en de premier propos euh, au nom du réel vous féliciter tous, vous souhaitez bon retour chez vous et dire aux membres du bureau que le travail va démarrer dès lundi, Inch'Allah. Merci beaucoup.